man zanna ghayra llahi yughni aw mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bi di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba TV Bamba شين بوور wóor ànd ak xibaar كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريعا أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عازما على أن أحسنها أنا الذي لست أميل أبدا بلا سواك ها هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي mbokk ñi sétan ñu leen di fàttali ba tey ñoo ngi fii ci cant nuuru daara ni ci daaru salaam jot nañoo jot a jaar ci yenn ëxlu yi lu mel ni ëxlu café ak euh, waa accueillir ki ñu taxawal nag tey mu ngi nekk jëwrinu daara ji suñu ñu bàyyi la nga nuyu ak ñu lay seetaan. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu nuyu sëñ xaadim soxna bu sa ñoo ngi leen nuyu baax la siyaara di leen ñaanal jàmm ñaan suñu borom dolli seen i xéewal ci man maa ngi tudd Pam Ndiaye di jëwriñ organisation pour lu taaral bis bi rek waaw loolu daal mooy sunu taxawaay nii ñun ñi taxaw nii ñëpp waaw. waaw sëñ bi mën nga ñu wax euh, lu waral ñu sos euh, lii di Daara Nuuru Daara na fii ci daru Salaam. waaw ñoo ngi loolu day moom boo ñu ko laajee dinañ ci kontaan lool ndax Nuuru Daara ni li tax ñu sos ko mooy dañoo sant Serigne Saliou rek ndax serigne saliw de dañu amut lulul mom tayit mu jappé ndaw ñi no xamni musuñu gis ku melni mom ci yermande motax ñu jël bis bi tuddé ko sa bu délusé ci atmé ñu ñu santé ko ko tayit cyant gi tam ñoo gis muy ko ndax li sunu borom wax ci alcorane rek la in sakartum la asidannakum santé leen ma doli leen kon cyant gi ñu koy sant at mu jot rek day gëna yokku gëna taru gëna tay mën nga fatali mbokk yi lay seetaan cant ji bam tambalé tàmbalee ba ñaata at la toll kon comme jëwrin euh, sëñ Modou lim wax rek 2011 lan commencé cant gi waaw at mu jot itam ah yéen nga fi ñew gis ngeen day gëna taru gëna gën a amul tànk ginnaaw daal tànk kanam rek la am waaw. ñu sétlu né fi ci daru salam dafa nekkoon euh, zone bo xamné dafa sayr ci da see doole lool ñu gis ne jamono yi léegi saa suñu tantalee sëñ Touba ndaw yi dañuy wuy si bu baax a baax a baax ban jàngat nga am si loolu. waaw loolu day santaat yàlla ndax Daaru Salaam moom daana toll na jamono yoo xam ne moom ah euh, chaque jour moom da ngay dégg euh, mbirum àdduna rek moo fi daan yëngu waaw mënoo toog suba ba ngoon déggoo ko ci ay goxi wax waaye fi mu toll moom ndaw ñi bi ñu ci barkeb ak euh, yërmande ji gën ji ñu gis ci ak bëgg gi leen bëgg bëggan motax ñu ñom ñep ñu jog jëm ci xasida daanaka fi mu toll musique li nga ko fi dégg man na ni ñakatu fi de waaye ah, di nga tok semaine do ko fi dégg fo déglu xasida ngay dégg tout tànk yi foo leen gis tam daayira lañu gëm te it moom bëgg te it moom la ñuy dund xasida daal la ñuy bëgg mom lañu gëm waaw. waaw mën nga ñu wax naka ngeen di liggéeyal ak Serigne Touba fii ci dar salam waaw ni nu ànd di liggéeyal Serigne Touba day ni ko alxuraan rek aljamaatu rahma mbolo yermande mbolo lanu mo xamni yermante yërmante lanu kenn ku ne japp ni sa morom mo la gën ñu doon ay talibé serigne Bamba bëggu ñu lu serigne Bamba itam liggéeyalu lu lu Bamba itam ñu mel ni euh, euh, euh, kurus kurus mom téméré per yi bo ñoo and kenn takaliko ci nonu dal lanu mel. mel ni nasub kurus di ànd ngir jëmmi sëñ Tuubaa ak yërëmante ak jàppalente ku ci am problème ñun ñëpp ñu jàpp ci ku ci am xew ñu jàpp ci bu dee jàmm bu dee laneen. waaw loolu itam de boo ñu ci laajee dinañ sawar daaru salaam ni mu lëkkaloog daayira yi rek mooy kon ni ma ko waxee rek aljamaatu rahma mbooloo mi moom day waxta si moo bi abdillahi jamian wala tafara xooja alxuraan di wax itam noonu la la ñu àndee bépp daayira bu ne tey jii bépp daayira bu ne ci dëkk bi teew na fi jàpp na ci bis bi. démb rek démb euh, barki démb rek mën naa ni daayira bii nga xam ni mooy euh, Fatxul Wahab daayira euh, ñoom seenub daayira ci ngoon gi di alxames fii lañ ko defee ci kër Serigne Touba gii kon loolu mooy wane ak mooy wane ab jàppoo waa Kanso ngi fi waa ñëpp bépp daayira boo xam ci dëkk bi daal ànd na nekk benn te yàlla tax ku ci xewle ñu teew ca ñoom itam bu ñu xewle ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ànd ngir liggéeyal sëñ bi amul xaajaloo amul xiiroo amul ŋaayoo kenn ku ne defe na ni sa morom mo la gën bis bi bu diké itam kenn ku ne ni bis bi kat sa bisa yow luñ ci wara def ya ko wara def luñ ci wara wax ya ko wax kenn ku ne japp na ni mamum bis bi dal ma ci wara def lepp nonu and bobu dal lan and muy and ngir yalla and ngir sëriñ bi and te yalla rek tax ba aljana itam mom lay ñaan ci barkeb sëñ fallu sëñ bi nga wax mu baye la nga wax sa cadeau bu muju ak sa cadeau soññe ci ñi nga andal liggéey bi. waaw kàddu gu kàddu gu gi day moy xana santat yalla di sant euh, jëwrin yi ci sama ginnaaw ma ànd ak ñoom xam naa ku lim da ngay juum moom day ñaanal sëñ xaadim mi suñu jëwrin suñu borom yàggal ko fi te dëgëral ko di ñaanal ko mel ni sëñ Seex Mbàkke ak sëñ Modou Sakho ak mboolem ñu nu rek ah ñii ci sama ginnaaw itam ku mel ni maam Thierno sëñ Maas ci am ak euh, ñoom ñu nu àndal ñëpp sëñ Ablaye Ngom xam naa ñoom itam mënee suutal lim daal ku nu limut rek ñu nga xam ni euh, xam na ni ni ngi ciy doxee daal waaye taxawaay bi rafet na boo gisee baas bii ni mu mel. ah wax deug yalla melu ni won daw at mu jot itam day gëna taru gëna jek a rafet ah ñu ñu ñu am pastéef nag ah, jital ma yalla gi tam du jitaluk may liggey wala len damay tok rek di len xol waye ñom lepp ñokoy def kon ma ngi ñaan ci barkeb Serigne fallu sunu borom degeural len ba lepp lo xamni bis bi, ñu ko ci sentu sunu borom def ci lo kawe suñu njortu te lepp luñ fi ben bepp allahumma buñ ci jang sunu borom euh, dottil ko Serigne Saliou Mbacke ay xéewal ak i yërmande ci barkeb Serigne Fallou ñun itam mu defal mu euh, bis bi daal muy yokkuteeg Daaru Salaam ndax bis bi day bis bu rëy ci Daaru Salaam di bis boo xam ne ñëpp dañ koo bàyyi xel di bis boo xam ne ñëpp dañ ciy jàpp ci biir Daaru Salaam kon ñoo ngi sant waa Daaru Salaam ñëpp di leen ñaanal sunu borom defal leen tawféex defal leen ay xéewal yu saawante baawan ci barkeb Serigne Fallou ndaxte murit moom addi ak dépasse rek lay daw adiya ak dépasse dong la daw lu am sëñ bee mom moom jëm yi sëñ bee mom moom dérèt yi sëñ bee mom lepp lu sëñ bi bëgg dal ñun bëggatun dara waaw kon dal ñoo ngi leen di sant yeen itam bu baax di leen gërëm di leen ñaanal seen euh, euh, site bi yalla na sunu borom yokk ko ba bépp site bu ñuy dégg ci aduna mu gën cee kawe ci barkeb sëriñ fallu sëñ khadim ñoo ngi doolee fasante ak yow kóolëre di la ñaanal gudd fa ak wër soxna bu sa ah yeen mom ah, sëriñ Touba ak eh, mam Jaara bu sa mom yaakar na ni yaay ak dom la kon yal na yàlla dëgëral leen yalla na yàlla jàppale leen nga yor barke mam Jaara kay itam yor barke cheikhul khadim ñun taalibe itam suñu borom dëgëral ñu defal ñu ay milliards yi Seexul Xaddiim ci barke seigne Fall assalamu alaykum wa rahmatullah wa anta hasbi ya fala abghi siwa fahmi himaaya liyakun hisnan hasil an kulli dhina min wa zufrin kulla hiin wa takfini ya dhal baqaa'i wal qidam هذا الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب ذا سلاحي وشر ما يطير ذا جناحي وشر من يجلس بالكلام وشر ذي ضجع وذي قيام وشر من ينفذ في العقود وشر ساهر وذي جهود بك عقدت يا إلهي الأسدا وحية وأقربا وأسودا وعاقلا ونافذا وسارقا وعائنا وساحرا وطائقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله ذي العلا ونجني من شر سائر ba tey mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi ci cant nuuru daaray di fii ñu taxaw nag mooy waa ëxlu ndox sëñ bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak ñi seetaan. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ñu leen di jaar bu baax di ñaanal suñu xalifa Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd mu yàgg fi lool te ànd ak wër. di ci teg sëñ Assane Ndiaye suñu jëwrin suñu kilifa ñun ñëpp di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ziar mbooleem jëwrin bu nekk ci daara ji rek ñu lay ziar baax di la jox sa wàccuwaay di leen ñaanal yàgg fi loolu te ànd ndax bañ ci nekkee ba léegi ñu ngi ñuy tette di ñu wanawu yoon di ñu dimbale ci li nga xamante ne moom lañ bokk muy yoonu sëñ bi di ziar tamit ñëpp ñu nga xam ne moom la ñoom laa bokkal lii muy liggéey bi bañ ko àndee ba léegi deltuwuñ ginnaaw ku ci mel ni Serigne Saliou Ndiaye soxna Ndeye Dabo ak Serigne Asdal bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñu di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu ci ànd ak wér di ñaan lii ñu ànd ko ba suñuy sët tamit nekk ci di ko liggéey te xam ne ndimbalu sëñ bi rek lañ ci am ndax mën na ñoo fekk ci leneen heure bi mais ñu ngi sant bu baax di ziar sëñ Xaadim moom it ndax chaque ane day ànd ak ñun liggéey bi di ko ñaanal bu baax matériel bi gën a yokk ba mu ay télé xanaa bu ko defee rek ñu jox soxna Ndeye daal moom nga xam ne mooy jëwriñ soxna yi mu li nga xamante ne moo ci des bisimilah asalaamaaleykum soxna si ma len nuy di len ziar di leen jox seen way di len ñaanalit te di ko sàkku ci yéen te ñaanalit jëwrin yi ndax wax deug yalla amuñ sen fay ndax mënon nañu xettal ci leneen te ci li rek lañu xettal kon ñu leen di ñaanal bu baax di ñaan li ni yalla nañ ko def ay ati at yalla bu mu nek mu jentalu kant ma len di ziar bu baax nak di ziar ñuma bokk ak li wax deug yalla ay jambar lañ ay ndaw lañ waye ay jambar lañ ndax dip démb ci guddé ba tay ñoo ngi nekk di root lépp loo xamante ne moo jëm ci cant gi lii nii moom dañ koy fas yéenee seral ba bu nit ñi añee ñu am lu ñu leen jox ñoo ngi ñaani benn ndox boo xam ne du fi manqué mu nekk wàllu togg gi ak wàllum naan gi ñoo ngi leen di ziar baax nag di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla nañ toog ba suñuy sët di ko def ci barke Serigne Saliou di ñaanal sëñ Xaadim di ñaanal ñëpp képp ku fi teew rek yàlla na la yàlla fay bu dee yiw bi yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ñoo ngi leen nuyu baax di leen ziar jaajëf soxna si mën nga wax nan ngeen àndee waajal liggéey waaw liggéey bi moom mën naa ne maanaam tey jii bu jàllee suba ñoo ngi commencé lu jëm ci cant ak déwén ndax mbir moom doo bàyyi ba mu ne na joonu rek nga bëgg kaa def chaque jour ñoo ngi tijji benn groupe boo xamante ne ci la ñuy waxtaan ci la ñuy def yëpp bu ko defee bu cant gi ñëwee du ñu bett wax dëgg yàlla mu nekk ay góor yàlla yow neex a ak ay soxna yu déggoo ndax mbir moom xam nga ne bu déggoowul. du yomba def waaye wax dëgg yàlla déggoo nañ lool وتغنني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم واغرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتدخل الأنوار في رفادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبح sëñ bi mën nga ñu wax yow la kan ak lan ngay jiite fi mu mhm, man la Moustapha Ndiaye bokk nooru daare ni mhm, di santaat yàlla bu wér a di sant sëñ Saali mi waral bis bii. Mhm. waaw sëñ Moustapha ñu gis la nga taxaw ak ay ndaw ngeen nekk ci seen euh, waañ yéen fi mu toll nii lan ngeen lan ngeen sasoo fi mu toll nii waaw ñun de yàlla nañu Touba feeñoo si café gi ñu faciliter xitma mhm. euh, depuis daara bi sosu ba léegi daal si café gi lañ nekk di liggéeyal sëñ bàmba mhm. xëy na nag lott nañ ci lool mais kàttanu sëñ bàmba rek mhm, lañ ciy demee waaw ngeen nekk ci café gi mën nga ñoo wax nan ngeen waajalee bés bi ak ban quantité café ngeen ngeen ngeen segg ndax am na différence par rapport ak at yi jàll ndax da ngeen yokk wala da ngeen a waaye waaw dañoo yokk wax dëgg yàlla waajal nañ ko ku nañ ko daa waajale hmm, waajal bu baax a baax a baax a baax a baax. Hmm. waaw man ñu gën maa xam ci Ibba Café te Ibba kafe gi daanaka lii moo ko sabab muy waa Nuuru Daareeni nga xam ni soxna si ma dendal moom moo ñëw tabal ma ci liggéey bi ma ñëw jokk ci si dox doxin boo xamante ne lépp si suñ jëwriñ ji lañ koy taataane muy sëñ Moustapha Ndiaye waaw ñu gis yéen seen pas-pas bi ngeen di doxal bi ngeen ni ngeen àndee yéen ñëpp ñu seetlu ne saa saa su murit yi wootee rek yéen yéen fa di segg café yi léegi lan moo waral yéen pas-pas boobu ba fu ñu dem rek fekk leen fa ngeen ànd di liggéey. waaw pas-pas bi moom mooy daanaka liggéey bi ku si nekk ak fa la Serigne Touba cëralee ñun nag café gi la ñu tubaa Touba cëralee. ñu ànd ak ñi nga xam ne ñooy suñu jëwri ne ku si mel sëñ Abdou Mbaye ak sëñ Sira Diouf nga xam ne soxna yi moom macha allah bu ma limee soxna si fi ak soxna Ami Faye rek ak soxna Jaara lim naa ñëpp ñuy ay jàmbaar lool cant gi nag daanaka nekkul ren lañ koy doog a def ay ati at ñu koy def waaye saa bu ñëwee moom gis nañ ci yokkute bu baax a baax dañuy yokk ci boor yëpp surtout wàllu wi ñu féete muy café gi waaw cant gi ñuy def ak daayira Nuuru Daarayni bi mën nga ñoo wax ban jeexintal la am ci tout tànk nekk biir Daaru Salaam. waa cant Nuuru Daarayni jeexintal gi ñu si am moo di tey benn ci man mii ndax fii laa bokkoon te fi mu toll nii demaa naa ci beneen daayira bu ñu naan fàqul waxaat te lépp daanaka fii laa ko taataanalee ndax ñoo jël. taf ma ci seen bopp wan ma liggéey bi ba ma am toog tuuti lu ma ci xam ba mën a góorgóorlu si liggéeyal borom Tuubaa waaye lépp si suñ jëwriñ ji lañ ko taataane muy sëñ Moustapha Ndiaye di ko jàmbaare ci liggéey bi jëwriñ la waaye wanewu ko puukarewu ko oyof na lool chaque jour lu ñuy jëriñ rek la ñuy wax ci liggéeyal borom Tuubaa gi surtout ci café gi ñu féete الذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلح الأمة خير مرسلين وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم وتقلهم واغفر لهم واجعل يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في تمام maaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen ziar bu baax rawatina ci bis bu tedd bii ñu nekk muy cant sëñ Saliou ñu ngi ciy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu suñu jëwriñ sëñ Xaadim Njaay di ko jiite ci nuyu bi di di ci teg Cheikh Mbacke Ka mi nga xam ne moo topp ci ginnaaw ak euh, Mouhamadou Lamine Sakho ak soxna Awa Cissé ci soxna yi ñuy nuyu ñëpp daal di ziar ñëpp. wa sëñ bi ñu gis la nga and ak sa wa membre mu nek membre accueillir est-ce mën ngeen ñoo wax nan ngeen wajale bi ak lepp lo xamne ne wo ngeen ko ci ak lo xamne ne mën mun nañ ko ci sent waaw ndax eh, waaj bi yag na ndax dañ daan def chaque dimanche ñu dajé di ci waxtaan di ci def suñuy xalaat ba yàlla def nag addi yépp yemb léegi nag comme dañ leen yéen yéenee dalal gan ñi moo tax ñu waaj ko daan def sag dimanche ñu daje daje daje am nag sas wu ñu daggoon teg ko ci wàllu góor ñi ak soxna yi waaye yàlla def na daal lépp jàppandi na ba defar nañu ay xeeti naan yoo xam ne ñi bu gan ñi ñëwee ñoom lañ koy jox lu mel ni bisaab ak buy ak euh, ji ci nebedaay amna ñet xet yoy dal mo am wa wa señ bi ñoo wax ban pass pass ngeen andé waajalee ko bés bi mm-hmm. bam yegg ci fi yak say ñi nga andal wa lolu dañ koy sante Serigne Touba bu baax ndax biñ ko yëkëté ka yëkëté ba tekk suñu loxo ci lañ ci and ak uh, wa soxna yi nga xamné ñoo nekk suñu wet ak goor yalla yi wax deug yalla ñu tem yalla def na ñu yëkëti ko tek ko sama loxo ma doon njiit li wax dëgg yalla pas-pas ak pastif rek te rek la andé kenn ku ci nekk japp ne manam bu defaro yow la loolu daal la ñuy àndi ñu nyu nak wax dëgg yalla ñu ñu ci sant ñëpp di ci sant Serigne Touba bu baax wax dëgg yalla xamna liñ ci def ren mom kawé nak njort na bañ ko dalé def ba tay eh, liñ ci am ren ni mosuñu ko am kon loolu ak yokkute la ñu di ko sant Serigne Touba nag bu baax a baax. Mhm. lan nga ñu mën a wax euh, ci daara Nuuru Daara ak ndaw yi Daaru Salaam. waaw foofu moom dañ ci sant bu baax rek ndax door tuut tànk nekkoon war a dem caaxaani defuñu ko ñuy ñëw di ci liggéey Serigne Touba loolu dañ koy sant Serigne Touba. te liggéey suñ tubaa yombut te ku mu du mu neex rek nga dugg ci suñ tubaa lay neex mu boole la ci boppam loolu ñu ngi koy sant suñ tubaa bu wër ndax mënoon nañoo doon ay tuut tànk di caaxaan man di nekk loo xam ne suñuy waajur du leen neex waaye sant nañ suñ tubaa bi ñu boolee ci boppam ñu di ko liggéeyal wax dëgg yàlla sant nañ ñëpp daal di gërëm ñëpp waaw wax dëgg yàlla taxawaay bu bu am solo ndax ndaw ñeeg mag ñeeg ñëpp rafetlu seen doxin loolu wax dëgg yàlla ku ku kuy waxal yàlla rek te yàlla rek tax boo gisee rek xam ne maanaam am nañ pas-pas ak pastif ndax moo war ndax maanaam cant gi du defuñu ko tey defuñu ko démb yaakaar ay at ngi ñu di ko def te saa bu ñëw rek gën a faw di romb kon loolu tawféex la ñu koy sant Sëriñ tubaa daal waaw kaddu gu mujj gi xanaa sant yàlla rek di ñaan yàlla ñu fekkewaat bés bi te tal ko ñu yàgg koo fekke di ñaanal suñu njiit suñu Xaadim Njaay yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi te wër ci barki borom Touba moom ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam mooy ñi ma tuddoon léegi ku mel ni sa mu saaxo ak Cheikh Mbacke Ka ak si soxna yi ku ñuy wax soxna Awa siise ak soxna Ami Ndour di ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi ndax su ma tuddee ko mel ni sëñ Bóora ak sëñ Moussa Gueye mii rek ak ku mel ni soxna maam Jaara Cissé rek ñu yóbbaale ñëpp wax dëgg yàlla ànd bi daal rafet la wax dëgg yàlla loolu daal ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di sant sëñ Tuubaa bu wërëwërë ñu ngi jëf. وللتي لها لخير الركنا لها ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها جعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجر في علم يفهم ورفع السيد بقلب يخشون وليأتي دعاء يسمعه مع القناعة نفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأثقلا كنف سترك أبد علي مع جملة أهلي يا صمد وادرس رادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسكرا وانطلق للجميع في مكنوني غيبك واحجبنا عن الفتور وعن سرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع ba tey mbokk yi ñi seetaan ñu leen di fàttali ñoo ngi fii ci cantu nuuru daaray ni fi ñu taxaw nii mooy moo mooy wàññul waa nuuru daaray ni jëwriñ bàyyi la nga nuyoo ak ñu lay seetaan waaw ñu lay ziyaara soxna jaara di jox sa wàccuwaay baax baax di siyaar mbokki kon ñep siyaar mbollem eh, jullit yi mbollem taalibe yi di ci jital nak Cheikh mohammedul muntaha di ñaanal mu yagg fi lol te ànd ko wér noonu lañ koy ñaanale itam taalibeem bu mag ba muy sëñ amni modou Mbenda di ñaanal mu yagg fi lol te ànd ko non noonu itam lañ koy ñaanale Cheikh abdul Ahad Mbacke borom tuwa jiwalo di ñaanal mu yagg fi lol te ànd ko di ñaanal tay ziar mbollem sunu kilifa yi nga xamne mom lañ bokal liggey bi di waa duuru daaray ni ku melni seigne khadim Xaadim seigne Cheikh mbake seigne ablay mi nga xamne mo jité wañ wi ak kep ku fi tew rek te bis bi tax la jog ah loolu lañuy nuyo ba tay seigne bi mën nga wax ah, ñi nga xamne ne lay nan ngeen wajale bés bi ak ah, ban taxaway ak yan matukaay ngeen ci jël ba mu yexi waaw jërëjëf bis bi day noonu nga ko laaje rek daanaka laaj bi sax moom tontu na boppam ndax ak sant moom kenn ku ne xam na ni ah, suñu borom ma ko digle wax ci alxuraan ni la in zakartum la azidannakum la in zakartum la azidannakum bu ngeen santee rek ma ma dolli leen waaye wa in kafartum inna azabiya sadid mel ni dafa ñaxtu ci ku ko ñàkk sant ku santul da ngaa weddi te ku weddi nag man yàlla sama boroom sama mbugal tar na lool tamit yàlla ñu ci yàlla mosal kon sant ko lu war a war la ah, niñ ko xamee nag ci yoonu murit mooy xëy jàng alxuraan bernde jullit ñi boole ko xasida yi fexe ba ñëpp bëgg sant ko sëñ Tuubaa jaarale ko ci Seex Seex Saalihu mi nga xam ne moom la ñu defal defal bis bi waaw noonu daal lañ ko fas yéene mboolem mbokki taalibe yi nag ñu ngi ci liggéey bi ñee ngi ci waañ wi ñee ñee ca des fa ngeen jóge léegi muy baas bi Ah, lépp loo xamante ni daal ah, dana tax bis bi jag ah, mbokki taalibe yi ñu ngi ci waaw foofu lañ tollagoon waaw ñu gis waañ bi daanaka ñu seen gis mbokku taalibe yu bëree bëri ñu nekk ci biir waañ bi est-ce que mën nga ñu leeral ndax waa waañu nuuru daara ni kese ñoo fi teew wala dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ci biir waaw liggéey bi moom day liggéeyu mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo féete fii ci Joalo murid yi rawatina maanaam jullit yi tamit ah ndax ku ci mel ni ñun ñi di di yow xidmatul xaddim la ñu bokk sëñ Njaay mi noonu mu ko waxee moo fi teewal ah, Kanzul Muhtadin ci gàttal daal ñëpp képp koo xam ne ku yaakaar sëñ Tuubaa nga fi mbaa am nga fi teewal kon liggéey bi day liggéeyu ah, mbokki taalibe yëpp rek. Ah. وللذي لها لخير ركنا لنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها جعل أطيب الحلال بالعسر واليسر على توالي وليجر فيه بعلم يفنون ورفع السيد بقلب يخشون وليأتي دعاء يسمعون مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والكبرياء معين واصلا كنف سترك أول علي مع جملة أهلي يا صمد وادعي سراد آت حفظك على داري وما فيها جميعا مسترا وانطلق للجميع في مكنون خيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن المسكن مسكن الغفران والرشد والعفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من رضا ودار دفع مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصوير والتفهيم واجعلوا مسكن خروج من ظلم بالنور واكف عنه كل من ظلم وجعلوا دابا مسكن اتباعي لسنة الله مسكن ابتداعي وجعلوا يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء السنين كنان دون وان بزاد الزكاء جراء رحمة وبزاي سلفة وبسين سلام بشين شفاء وبصاد صدقا وبالضاد ديان تايتها بغاي زفرا بالمرام نوغي لب comme niñ ko jàng ci xatma bi rek li ci manque yàlla na ko yàlla mottali bu gisee bàyyi ba dëgg yi bis bi da ci am tawfiix bisu tay bii le 11 mai di bisub samedi ci la wàcc liggéey wala mu soogay wax léegi ak ñu doon bis bii tamit lu ci ëpp ñu ne ko taxawee ci biir kër Baye Cheikh Fall yàlla dogal tey fekk ko fi mel ni soxna Fatim njaay xam naa buñ ko bëggee lim du yomb waaye soxna Fatim Ndiaye xëy na ñu day ñi mujj dem waaye mboolem rek buñ ko ñaanee ci xatmu bi jullit yi génn àdduna yëpp fasaale dinañ leen muy wayjur am di jàmm yeeg mbokk yeeg xarit yeeg sëriñ yeeg dugg nañ ci biir ko xatmu xëy na ñooñu nag mujje dem ñu leen di gën tey waaye jullit yëpp ak ñiy dund ñun ñii ndax ni ko sëriñ bi waxee isi doa yanfau maytan fi lxubuur wa l lxaya wa l ujur nee na ñaan dina jariñ nit ci bàmmeel di jariñ kiy dund di waral di waral ab yool kon yooyu yëpp yàlla na suñu borom defal ñu ko ñu faatu yàlla na yàlla yërëm leen ñun ñi fi desandi yàlla na yàlla guddal suñuy fan ci defal ñu ak wér li gën a jafe muy wér yàlla ñu ko yàlla defal yi dolli suñuy sutura suñuy xéewal yokk suñu wërsëg ba ñu man koo sant bu baax a baax te lépp luñ ko defal ci jaamu yàlla mu nongu ko ñu ngi sant ñëpp di sant waa daayira bi ah di leen ñaanal yàlla ndax lii ñuy def sagub jullit yëpp la sagub jullit yëpp la ah pas-pas bi saa su ne day gën a yokk di gën a dëgër kon ñu leen di ñaanal suñu borom. guddal seeni fan lool te may leen ay xéewal barab bii ñu toog xam ni barabu jaamukaay yàlla la dañ ko faggu ci daayira bi ñoo ko faggu muy barab bi ñu nekk tey ngir di ci jaamu yàlla di fi jàng ay xasaayit di fi tudd yàlla at mu jot ñu daje daje bu mel nii ci lislaam rekk tax sagal lislaam rekk tax diko jaarata bi ci seexul khadim wax ni mu wax ni bi bashir kul aam wa sanna man bi yurid man taada an sinna ene kep kuy sakko ci man yàlla de ko bigal ci atum naataange ak atum bekor may am bekte bu mu yëg bekor atum naataange ak atum bekor yëpp yow de ko bigal serigne Tuubaa neen képp kuy sakko ci mom yàlla loolu nak kon bunt la boo xam ne dañ ci sàkkoo suñu borom kon ñu ñaan suñu borom ubbil ñu ko bu mu leer nañ sóob ñu ci ba ñu jeex ci tàkk ba kër ñuy teere ci àjjana ñu ngi sant ñi fi teew yëpp imaam yi wax daal mag ñi fi toog bàyyi mataar ustaas imaam ñaan ñëpp rek xam naa bu ñu limee dañuy juum waaye si ngi bàyyi imaam li ustaas ak sëñ Bada sëñ Badou ñaan euh, Cissé ak mbokk yi ne ci ginnaaw waa daara ji yëpp tamit ñu leen di sant ba suñu caméraman bi suñu xaadim Seck ak uh, jëwriñ suñu xaadim Ndiaye ñu cant gi ndax mooy jëwriñu daayira bi suñu xaadim Ndiaye moom tamit yàlla na yàlla guddal fanam muy jëwriñ ju neex a àndal du xëccoo dara suñu xaadim kenn du ko dégg mu wax moom daal jëf la féetewoo ak noppi dañ koo jiital mu jëlaat mboolam bi yëpp jiitalaat ci kanamam ñoo xam doo ko dégg mu wax du werante du xëccoo na ci lim nekk rek tam yàlla na yàlla guddal fanam waaw ah, jëw yi ne ci ginnaaw it ah, yàlla na yàlla dëgëral leen baax a baax yokk seen sutura seen xewal seen Pape ah, yàlla na yàlla guddal fanam mel ni sëñ Cheikh Mbacke ka sëñ Modou Sawa ak ñi ma àndal ñëpp rek man duñu mën a dim ndax waa daayira bi yëpp kenn ku ci nekk sa taxawaay ñu nag leen di sant suñ cant bopp Eh, niñ ko daan wax rek ndax ñoom ñooy féetewoo seen i coono di ñàkk seen àll ba noppi bu sag bi dikkee ñu sagalañ ko te ñun duñ ci dara dañoo baax rek ñoom ñoo baax rek dañuy jox cër di ñu sagal loolu nag xam nañ ko bu baax a baax te def ko tamit ak soññee kon yàlla na yàlla may ñu fekkewaat ko déwén yu bari alxuraan yi ñu fi jàng eh, di sant tamit suñu kilifa yi ci dëkk bi ndax bis bii Euh, laata ñu koy taxawal di ko jàpp dem nañ ba ci sëñ Abdou Lahad waxtaanteeg moom mu ñaanal ñu ci ak sëriñ Bas daayira bi dox nañ ba egg fa booy kilifa kuy kilifa ci dëkk bi rek wax dëgg la yëgal nañ la ko xam naa ku ku ku ñu ëssul ceeb it xëy na xat-xatu jamono la waaye am na ñëpp yéen yëpp ñëpp ko. li ñuy gën a sant waat di ko leeral mbooloo mi yëpp bis bii le 30 le 30 avril lañ ko doon def te moom lañ ko daan def. waaye cër bu ñu jox ñun ngir seenu mbaax maanaam màggalu ngaabu dafa tombé woon ak le 29 xam ni le 29 30 moo ci topp bi mu demee noonu ci jàpp nañ ko la 30 avril moom lañ ko daan def màggalu ngaabu nekk le 29 mars ñu ni le 29 kon le 29 avril waaw avril xam ni tey la ak suba ñu ni comme da ngay dem ngaabu. ah te bu ñuy sañoon bis bi danga koy teewee kon dañuy àndal bis bi ba jàppaat ko beneen dat moo waral ñu indi ko la onze ji loolu nag ab cër la wax di yàlla ndax mbooloo ma toll nii di ñàkk seen alal di dajal seen alal di daje ay daayira man duma dem daayira du ma cotiser du ma dara waaye ñu sagala sag bu toll noonu suñu bis taxaw muy ngaabu mu tax ñu fomb bi bis bii ngir bis boobu loolu rëy na loolu ci man lolu kër bu re re re re la kër bu re la wax dëgg yalla ndax su leen neexoon wax dëgg yàlla loolu ci fek ndax man defo lu leen ci dara mënuma ci dara tamit sama ñak ci tew mënu ci dara kon buñ ko buñ mako ma ma jarale di fombu bis bi ben bis wax ma sen fay kon ma ngi sax ñu borom ñëpp ñu ñaanal leen suñu borom defal leen tawfiqul ñaan jataay bi yalla bu mu nekk suñ mujj jataay yaawé dajee nañ fi daaw dajee fi daaw je dajee nañ fi ay xati xat xat mu ñëw yàlla gën ci ñun te gënal ñu yaara bi di nuyu waa nooru daaray ni nooru seen tur woowu yàll na law ba nekk sahaadatu daaray yàlla mën na ko sañ na ko xam na ko yal yàlla defal ñu ko yaara bi xaadim njaay mi nekk jawlin ji ak imam Assane mii nga wax ne doo ci dara defoo ci dara fekk yow dey bu dara doon dara yow yaay lépp fekkoon dara dara la ñuy xool dara ci dara kon lii yaay lépp yow kon yaay lépp bu la neexoon yëkkatiku bu la neexoon rëy kàddu bu la neexoon rëy daraja bu la neexoon foo foo ñu xëcc xene la xene la ñu foofa danañ la fa fekk si ndeg sa mbaax ak sa yërmande ak sa lewet ak sa xam-xam matee nga ko day nga ñu sëkk sëkk sëkk sëkk ci lii nga xam ne moom la la yàlla nattoo nga nekke ko ci suñ kanam muy jàkka ji muy jumaa ji muy mbooloo mi muy daayira bi muy jullit yi muy dëkkandóor yi ku doon jullit ak ku dowut jullit gis naa sa taxawaay man mi nga xam ne yàlla nattoo na ñu toftal ma ci sa kaw fii ci jàkk ji soo fi newul may nab nabi waaye lu ci manqué yàlla ñu ko yàlla mottalil yaara bi imaam yàlla na yàlla guddal sa fan yaara bi dem nga màkka benn yoon yal na yàlla defal la ay toftal yu bare bare bare bare bare ak képp ku lu ko yéene ak ku ne amin wax leen amin amin imaam Assane yaag sa mbooloo mii ni nga ko waxee ne sagu daaru salaam ngeen ni nga ko waxee ne sagu jiwaalo ngeen ni nga ko waxee ne sagu Sénégal ngeen ni nga ko waxee ne sagu islaam ngeen wallahi la xasim loo ci wax rek lu ko ëpp mu ngi ci biir ndax yow mi nek ci kanam ragalo de ragalo pété waye bu la neexon ku dud wax ne man murid la rek wala ab jullit rek do la ñeme waaye sa lewet ak sa mbax ak sa yermande dang ka talal ci ñëpp ba ñëpp mëna daw jëm ci sa kaw te kep ko xamne ki jëm nga ci kaw asan wallahi da nga ndég mbaax goo xam ne gii noonu la lay tàccoo lewet goo xam ne noonu la lay tàccoo xam-xam boo xam ne noonu la lay tàccoo yal na yàlla lafal la cat yaara bi yal yàlla lafal la cat yaara bi yal na yàlla lafal la cat yaara bi ak képp ku la ko yéene ak képp ku ne amin amin amin barab bii Sansour dëkk bi la Sansour réew mi la Sansour tariqa yépp la ndax mboolem tariqa bu ñëw andi fi sa mbooloo dangeen koy yaatal te jàppale ko gis naa fi yeneen yeneeni tarix yu ñëw fii dal ci barab bii jaar ci yéen ñii ngeen yaatalal leen ba lañ bëggoon lépp ñu am ko ba am ci lu kawe seen jot kon barab bi barabu diine ji la barabu diine ji la de diine jee bëri banqaas nag waaye bànqaas bu ne ngëneel la waaye seen barab bii yal na yàlla yokk ko yaara bi lépp luñ fi ñaan yàlla yal yàlla nangu ko yaara bi lépp luñ fi jaamu yal yàlla nangul ñu ko te fulandil ñu ko yaara bi na yàlla aaral ñu suñuy mag yal yàlla aaral ñu suñuy mag nangu seeni allahuma suñuy jigéen yal yàlla nangu seeni liggéey yaara bi jigéen ñii ah ku xool da nga xam lan la jigéen ni Daaru Salaam di liggéey fi seen bés bii képp ku ci xool jigéen ñi da nga gis seen loxo ci biir da nga gis seen tànk ci biir da ngeen gis seen bépp melokaan bu rafet ci biir ci colin weeg ci waxin weeg ci doxalin weeg ci yar beeg ci toppatoo njaboot geeg lépp lépp lépp lépp li ngeen di def ñun góor ñi nekk fii ñu ngi leen ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di jaajëfal di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax di leen naw di leen naw bu baax a baax waaye di leen soññ ci góor góorgóorlu yokk seen liggéey boobu ndax seen liggéey boobu du doy de jigéen liggéeyam doyut na te li ngeen xam bu ngeen xamoon li ngeen xam eh, allahu akbar yal na yàlla fay leen yal na yàlla fay leen yal yàlla fay leen yal yàlla fay leen yaara bi ak képp ku leen ko yéene ak képp ku ne amin amin imam euh, ñu ngi wax ne euh, Adama Badiane woo na ma ne dafa génn moom bëggoon naa ñëw wante dafa génn kom ni ko sëriñ Mbaye waxe ñoom ñëpp bëggoon nañoo teew si fii tey sëriñ Bay yal na yàlla bàyyi ko suñ kanam yaara bi di mujjee nag ñoo xam ne moom laa waroon a njëkkee sëriñ Basiru Mbàkke mi nga xam ne sagu Daaru Salaam la ak sëñ Abdul Ahad Mbàkke mi nga xam ne sagu diine ji la noonu laa koy waxee nag ndax sëriñ Basiru Mbàkke ni mu nangoo sonn ci Daaru gii man gisaatuma keneen ku ko nangoo sonnee noonu ku ñu sagal la ku ñu suturaal la ku ñu jàppale la yal yàlla yokk sagam yal yàlla yokk suturaam yal yàlla yokk ak jàppaleem yaa bi sëriñ Abdoulaye Mbacke yal na fi yàgg te wér yaa rabbi ak képp ku ne amiin amiin sëriñ Abdoulaye fu mu dajak taalibi yi taalibi yi sagu nañ ndax day génnee ci poosam kayit wu duuf daal ne ñëw leen ñu ñu defal taalibi yi ñëw leen ñu defal imaam yi. bala ñu fay ko dana fekk ne ñun liñ doon dajé ak mom dana nga fa gis lu gëna toy suñu xol yalla na fayal ñuko ya rabbi ma ngi leen di balu ak di leen bal ak di ñaan jotaay bi lepp luñ fi ñaan yalla na nang ko ya rabbi man ni ngeen ma yeeyee tey ci suba alquran karim bi ñi dem bam yag ngeen tek ci xasaayit yi man de tay ji gis naane barab bi amna lu bes tek am na lu bees teq ci ngëneel ci teraanga ci sutura ci barke xubbee nañ ko alquran teg ci ay xasaayit kenn mënu fee wax mbóosóor ci koñ bii tey déglu xasaayit yii jërë jëf jërëjëfati sëriñ Tuubaa jërëjëfati sëriñ Tuubaa jërëjëfati sëriñ Tuubaa sëriñ Assane Ndiaye yàlla na fi yàgg sëriñ Assane Ndiaye yàlla na fi yàgg di sëriñ Assane Ndiaye yàlla na fi yàgg di imaam yi toog ak jàngkati alxuraan yi ba daara ji yàlla na fi yàgg te yàlla na ngeen fi yàgg te wér barke sëñ Tuubaa sunu xol seddati na sunu xel dal na ndax saabun gis leen ngeen di nu comme ni ko imaam rek sëñ Asan yaay sunu sag sunu lépp sunu geesoo gis la sunu xol xel dal sunu geesoo xam fu nuy jëm kon sëñ bi yàlla na nga fi yàgg te wér ak mbooleem ñi nga àndal di jàng kaamil bi yàlla na ngeen fi yàgg te wér ci barke yonente bi sallallahu alayhi sedd na guy sunu xel dal na yàlla ni sunu xol sedde yàlla na na seen lépp yéwéne noonu ci barkeb alxuraan yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def ci barkeb xasida yi ah ñun daal xam naa ne mënuñoo wax dara xol bu sedd rek ak sant leen yal na yàlla guddal seeni fan imaam yow da baax lool <laughs> da ngaa baax yal na yàlla guddal saw fan yal na yàlla wéral say cër ci barkeb sëñ Fallou yow moom wax dëgg yàlla ah ñun dañ lay sagoo ndax ñun sëñ Assane mii ku bëgg ñu bëgg la ku bëgg sëñ Assane wallaahi ñu bëgg la waaye ku noonu sëñ Assane boo ñu gisee xamal ni sam noonu la ñun amuñu lu sëñ Asan wallaahi moo tax ba ànd gi nga ànd ak moom sunu xol sedd na ci guy yi suñu xel dal na ci itam yal na yàlla dëgëral ci barke Seexul Xadiim imaam <laughs> yow itam day moom xam naa ñoo ngi lay sant bu baax a baax oyof gi oyof gi wax dëgg yàlla ah, yéen kawe na ci ñun ndaxte moom xëccoowul dara wallaahi saa boo gisee rek muy gën a féete suuf rek waaye féete suuf gi ngay féete suuf moom ca kaw rek ca kaw rek yal na yàlla guddal seen fan barke Seexul Xadiim jërë ngeen jëf. sëñ Mamour Ndiaye mais tam sëñ Daara. waaw. ci bis maa ngi lay siyaara bu baax a baax gisuma la woon yal yàlla guddal fan wi moom itam moom itam wallaay moom itam day koo xam ni sëñ Assane rek laa koy xoole ma ne ko sëñ rek laa koy xoole ndax yar bi. am na xam-xam te am na bi yar moom wax dëgg yàlla foo gis sax doo doo doo doo jàpp ni sax borom xam-xam la wallaay ndaxte ak oyofam rek sëñ bi yàlla na yàlla guddal saw fan te yàlla yokk xam-xam bi ci barke Serigne Touba ah ràññee nan la baax a baax de te it ñoo ngi lay bàyyee xel bu baax a baax fu la gisee de yar bii lan xam ci yow oyof gi Euh, rek luñ xam ci yow kon yàlla yàlla guddal saw fan te ko bu baax a baax ci barke si aw xadim jërë ngeen jëf mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bii di tuubaa ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell